الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk جلتي yi mbokk سوكر كوريب السلام عليكم ورحمة الله تفسير عبد الرحمن السلام عليكم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف مامي نجي في بخ نجي لي زيار ببخ فتبارك الله دلنا دوكيل دي نيو مبولم سوصب يغا خمنتني نيو سيطان اميسيون بي دي سين سوكو روكور في تي دوز اس تي في ساب وقت وي جوتي رك فتبارك الله نيو ويتلي كونتي اك نيوم شريف بسم الله كادو غاغي لول واو كون تفسير دفداني اميسيون ديم بي اك بو بركي ديم بي ييب نيغي واخ تي باغا بوكالي سونو بوروم سبحانه وتعالى lolu le luqman dénk dom ji premier denkane bu mu ko doon dénk bokku na ci yu yu mu ko dénk mu ne ko bul bokale sa borom subhanahu wa taala la tushrik billah mu ne ko lutax tax papa mu ne ko ndax inna shirka la dhulmun azim amna wax nañ ci suñu kem katan li nga xamanteni émission bi dina ko attan waye nak ñu wat ci benen aya bi موخره ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون تفسير ما بغون بلا ñuy gëna ci aaya boobu pour gën ليرال leeral اندي indiwaat wax bobu ñu fi waxone gañu né dañu bëgg ñu léral ko cité Monterland général de Gaulle écrivain intellectuel yu bari bari bari bari dañuy gëstu ci ay mbiram waxon fi fils garde dans ta petite tête ces beaux vers qui au moment bourbeux de ton existence redonne confiance Néco-vivre signifie rencontrer des difficultés et les surmonter. Ne jamais se décourager d'un échec. Néco-dom, toute difficulté est un point d'appui. Mané Wardjodjou, ay siècle avant Monterla, tout l'islam waxoon na mais Koko dama manière dafa am honnêteté intellectuelle parce que dafa wax wax ji du samay wax mu ngi ko ci luqmaanul hakim mhm. Nan ko yaa bunayya iza shi'ta an tahya ودينك سالم وأقلك موفور يزيد ويكمل فكن معرضا عن كل بر صنعته مع الناس والسوء الذي بك يعمل فكن ذاكرا للذنب والموت تعملا بمختار لقمان الحكيم المفضل <laughs> يا أكبر نينكو دوم بو بغي دوندو دوندو gu neex sa àddina yépp دو doo jànkoonteeg benn coono coono boo mën a tasal nga mën koo surbonte jéggi ko ne ko bu fekkee da nga bëgg foo toll sa xel di ànd ak leer fees dell ak leer mu ne ko waaw mu ne ko te sa àllaaxiray dàq fuuf doom maa ngi lay dénk ñeenti mbir ñaar yi na ko fàtte ñaar yi bu ko fàtte ba ilaa yawmi diin mu ne ko pàpp yan ñaar lay fàtte mu ne ko foo defetee lu baax fa ko jëfee ci saa si nanga ko gu gas suul ko fàtte ko doom fu ñu la jëfatee jëf ju bon wala ñu wax la wax ju bon nanga ko gas bu mu xóot nga suul ko fàtte ko léegi ci ñaar yooyu laa bëgg ñu wax ba noppi ñu doog a delluwaat nag ci ñaar yi nga xamante ni nee na ko bu ko fàtte ba ilaa yóbbi diin bu njëkk bi nee na ko foo jëfatee jëf ju baax ndax tafsir gis nga jëf ju baax billaahi bu nit ñi tax ngay jëf-jëf ju baax ndax bu nit ñi taxee kuy jëf ngir nit ñi di nga sonn di nga tàyyi doo am satisfaction ba ilaa yawmil diin mm-hmm. waaye booy jëf ngir yàlla doo sonn doo tàyyi parce que toujours ki tax ngay def lu baax toujours nga gis lu la naqari ci moom wala lu bett ci moom waaye yow booy jëf xamal ni am na ku tax ngay jëf muy sa borom subhanahu wa taala mm-hmm. te nit ñi waruñu tax ngay def lu baax nit ñi waruñu tax nga bàyyi def lu baax jékki-jékki ne eh def lu baax daal jaratu ko nit ñi daal jaratuñ ko koo defal lu baax mu fay la safaan non parce que ku bàyyi def lu baax rek da ngay dem daanu ji di commencer def safaan kon booy jëf jëf ngir yàlla moom moo am solo li yàlla doon wax ci alquran naan innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura moo tax ma bëgg nga commenter ma foofu ci jëf-jëf ju baax tafsir barakallahu ay dara xam li nga wax imaamul jawhari yi fa tabaarakallaahu mi nga cité gis nga wayam bi mu ko waye ba pare lol mom la wax iqtibaas iqtibaas moy nga jël waxu jambour yo xam daf ko def nasr nga way ko mo xam alquran nga ko def wala nga def ko hadith mom nak waxu luqman mom la jël fa allah mu way ko waye gis nga ñaar yi nga xamante ne moom la ko digal bi jiitu mooy loo def ci lu baax nanga ko fàtte parce que luqmaan moo wax ni boo demee ca saraaya fa mu ko jëlee luqmaan dani xadamtu arbaatu alaaf nabiyan liggéeyal naa ñeenti junni yonent wa axastu tartu min kalaamihim samaani kalimaat tànn naa ci seen biir yi wax juróom baat yoo xam ni bëgg naa ñëpp dégg ko di ko jëf juróom-ñetti baat yooyu dinañ ci ñëw waaye damay tàmbalee rek boobu nga ñëw mhm. bi jiitu ci juróom-ñetti baat yi pour ñu mëna a avancer dinañ ko firi doonte jotagul moy iza in kunta fi salati fahfaz qalbaka wa in kunta fi taami fahfaz halqaka wa in kunta fi bayti ghayrika fahfaz aynayka wa in kunta bayna an-nas fahfaz lisanaka muy ñent yeren ñent yi muni wazkur isnayni wansa isnayni luqman ni dom ji na nga fatali ko ñaar fo tollu na nga fàtte it ñaar foo toll benn bi moom nga jël ñaar yi muy fàttaliku fu ñaar yi muy fàtte benn bi moom nga jël mooy daf ko ni ihsaanuka fii xaqi gayrika na nga ko fàtte saa boo defee lu rafet ci keneen ku dul yow fàtte ko xam nga day duggaat ba tey ci suñu waxtaanu démb démb ñu ngi waxtaanee ashirku muy bokkaale yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jekk ba mu yàgg mu ni saxaaba yi inna axwafu ma axaafu alaykum ashirku l asgar li ma gën a ragal ci mbooleem li may ragal man rasulillahi mooy bokkaale yàlla bu ndaw saxaaba yi qaalu ya rasulallah wa ma shirku l asgar saxaaba yi ni ko yow sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam mais bokkaale yàlla bu ndaw mooy lan mhm. yow démb jàngal nga ñu bokkaale yàlla xamal ñu ni mooy jaamu leneen lu dul yàlla wala nga teg keneen fi nga teg yàlla mhm. mais bokkaale yàlla bu ndaw mooy ban mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni leen yi boobu dafa garaaw moo tax ma ragal ko ñu ni ko mais wax ñu mooy ban ñu moytu ko mu ni leen arriya mooy hmm, ngistal ngir bañ ngistal dugg moo tax Luqmaan moom la imaamul Jawhari yi moom nga wax léegi way moo tax Luqmaan ni doom ji saa boo defee lu rafet jëf ju baax foko défé rek nang ko faté parce que boko faté wul xam nga lu muy waral suñu borom mu ngi wax ni la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha bu len yàq seen jëf yu baax yi ci di ñaaxe moy def ko rek ngir ñu defal la wala boo wax tek ci wax boko faté wul ëllëg Chérif tay damay tourner ci waxine ma yëkëti ben mbubu ma jox la mais buma faté wul di may daala mbubu bu ñu toogoon fii ak 10 ans boo ma waxee dara lu xaw a déranger rek wala ma wax dara àndoo ceeg man rek damay tourné daal ni moo ne Chérif day dafa mën a suul njekk rek waaye bërki démb rek laa ko may mbubb mhm. gis nga mbubb mi fukki at yëpp ñu ngi ko enregistré ci sama jëf yu baax mais bis bi ma nee bërki démb rek laa ko may mbubb tey may wax mu koy weddi yàlla dindi na ko moo tax dégg nga ci alquran maa ngi koy wax daaw defe naa ni wax naa ko ci émission yi mhm. Mhm. yàlla waxul ni man amila saalihan fa lahu asru am saaliha déedéet dani man jaa bil xasanati fa lahu asru am saaliha ko def benn bu baax fàtte ko ba nga ko defee rek suul nga ko fàtte ko sa xel dematu ci too xalaat ni sax defoon naa nangam ak nangam sa xel newu ci suñu borom ne dama la koy dencal waxoo lu ko yàq ndax fàtte nga ko defoo fi lu ko yàq ba ñëw yow mal qiyaam suñu borom nee na benn boobu fa ma ko rënkoon dama koy génne. daal di koy peser bu fekkee ba nga defoon toll na ci fukki kilo man yàlla ma fayee la ko yeneen fukk kon dama la ciy dollil cent ndax dix fois dix san lay doy. mooy ku indi benn bu baax rek man yàlla ma defal la ci fukk ndax léeg-léeg nag nit dina def benn bu baax waaye yàq ko avant muy àgg yow mal qiyaam kon moo tax imaamul jawhari yi wax doom ji ni ko jëlee naa ci dénkaane luqmaan ba mu dénkaane ni lépp loo xam ne loo def ci lu rafet la sa digganteeg sa borom nga ko def sa digganteeg jaamu yàlla yi nga ko def def ko te yàlla tax te boo ko defee te yàlla tax danga koy fàtte ndax ka tax nga def ko moom du ko fàtte muy suñu borom shérif bismillah. moo tax it euh, li nga wax rek tafsir dafa am solo. Mhm. alquran wax ko wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza mhm. ba tax na nee na booy saraxee bëgg la ngay saraxe am tuyaaba. Mhm. bul ñaax ka ngay sarax. moo tax euh, ñuy fàttali ko sa maam Mansour. si radiallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi doomu Seydil Hadji Malick si radiallahu anhu boobu mooy papay Serigne Mbaye Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam wéral cëram yàgg dëgëral taxawaayam amiin amiin amiin ak soxnaam soxna Faat Si soxna Faat Si moom Serigne Hadji Abdoul Aziz wallaahi ñu ngi koy ñu wallaahi ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla bàyyi leen fi ak njaboot gi yëpp ñoom say Habib di suñu lépp euh, tafsir euh, Mame Mansour euh, dama dégg ci jàngkat yi ñu ne 1944 bu mu amee 44 ans yor yoru altine mhm. medinatu munawwar ci biir rawdu rasulillahi ci la jokkar bi turandoowam mhm. ne ki tëdd nii huwa dawhatul uzma mhm. yudallu bi dillihi yamunnu bila mannin wa yanfi l maasiya ne na huwa waa ji tëdd nii borom barrière wurus bii ci medina sama turandoo bii ad dawhatu al uzma mooy garabu ndànjantaan gu magga ñu ne ko maam Mansour lan mooy garabu ndànjantaan mune ne yowmal ben kera fay am muy garabu ndanjantan bobu yu zallu def wute ker bi zillihi ci keru sayyiduna muhammad yowmal qiyaam ñu ko kan moy koku mune yonenti bi yamunu day maye bila maninte ninte du ñaaxaate kon day delu ci wat fofu wa yan fil maasiya xool bu sop xool bu sop yonenti bi day fotu ba set wetch dotul dëgmal lu yàlla bañ tafsir wa أول من لبى ألست بربكم هو الروح والرحمن كان مناجيا مام حاج منصور نينا وقد غاص في الأنوار حينا مصبحا وجاب بحورا عشرة متدانيا فتبارك الله شريف دينغ شيخ الحاج منصور مام شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى لكن خمر رك يالنا نكو يالنا فايل أمين يا رب ولا جابوا تمجي كوتي جل قصيدام رك كي فتبارك الله مو غنا خم يورنتي مو داقة جانغ ولا جابوا تشيري دو يورنتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله wax ko loolu mu ko wax ni wa awwalu man labba alastu bi rabbikum ndeysaan kera ba suñu borom naan alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom ab xaaji Mansour nee na sayidna Muhammad te jëkk a jóg daal ni balaa haka yaa rabbi yow la ñu ne loolu kan la mu ni kera ba yàlla naan alastu bi huwa ruuxu wa rahmanu kaana munajiya booba suñu borom subhanahu wa taala mooy déeyoo ak sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaji Mansour ni waa jii tëdd fii wa qad gaasa nuur na fil anwaar yi ci biir leer yi xiinan ab jamono mu sabbihan di sàbbaal boroomam mooy kiiraay ya nga dégg xudratun minnatun izamun rahmatun saadatun karamatun manzilatun hidayatun nubuwatun rifatun taatun shafaa benn bu ne nabi sallallahu alayhi wasallam def ay at Chérif loolu la ñu indi loon mbokki téléspectateur u 2STV mm-hmm. ci émission bii di seen suukaru koor xanaa jotal la rek nuyoo ak ziyaar alxaaji Massamba Mbeng ndeysaan borom daara ji wallaahi fa tabarakallahu la muy doon def ci daara ji toujours ba tey mu ngi koy def defati na ko ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla fay ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax seedeel la it ni la waa cellule d'appui pour la protection des enfants mhm. fa madame Diouf dit ko ñu nekk présidence ñoom machallah nous allah ñu ngi nous ci daara ji bu baax indi nañu ndogu les yi ni nous avons def ca Nous avons ja daara nous avons beeg ba nous avons ak avons ñi ci Chérif nous avons tafsir Omar Diouf mhm. moo ñu jox mbubb yi mhm. ak soxnaam mhm. walla main sur scène mhm. yal na leen yàlla fay ak soppe yi fa nekk yëpp fàttewuñu suñu reer bu neex ba keroog ba tafsir wallahi suñu siis njabootam ak ñëpp daal du ñu lim waaye yàlla yàlla fay Omar Diouf ak soxnaam Titi wallaahi ñoo ñu joxoon mbubb yi wallaahi la Chérif bala ma koy fàtte sax maa ngi am benn waaye bu ñuy wax Mbaw mu ngi marché central bu Thiès mhm. bijoutier la mhm. moo ma joxoon jaaro bi ni bu ma ñëwee naa la ko jox sa addiya maam est-ce que man defaral na ma jox na ma mu ngi nii mu ne ma kii nag joxal ma ko Chérif waaw moom de ñoom lu nekk rek dañu koy def daan na man fan laa koy def ci la ko daan def sallallahu alayhi wa sallam ci ci càmmoñ nii la daa yonent bi daan takke jaaro waaye maam Seydi Aj Maalik ne nabi bu ko takkaat nag nii la ko daan def fi suhu fii la daan féete ci biir loxo bi sallallahu alayhi wa sallam def ko nii rek voilà nii la ko yonent bi daan def kon nag xali Ousmane ay dara bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bunayhi musibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fahum saadaatuna ahlul makarimi wan nada jërëjëf xali Ousmane jërëjëf kon bu suba jàmm incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf